Euh, presque Touba ndox mu bëri mu ngi fa Dakar également la la la même chose da nga jàpp ne dafa am euh, ay sabotage yu nga xamante ni moom moo am ci ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy régime bi fi nekkoon non xam nga régime bi fi woon dañ doon jooy loolu sax ñoom mais ñii nga gis ñu toog dem di sécréter ay kanaal dafa fa génne ay pono di fa génne ay brique dafa fa génne ay matt koo ko fa dugal xam nga ni régime bi fa newoon dugaluñ ko fi parce que ñoom buñ sañoon ndox du fi taax est que njortuwuñ foofu a foofu la ñu war a kiire am na am yu ma gis ñu koy génn ci am benn caniveau Touba mm-hmm. pneu boobu de sëñ Muntaxa doo nga mën a xam ma nga fa ndax baatinam <laughs> loolu moom maa la ko wax kon pneu boobu sori war na baatin doo nga man a xam fii pneu ngi fi mm-hmm. waaye nit normal tranquille dugaloo ko fa mënoo koo xam parce que nañ ko doon xëcce buum lañ daanaka pneu bi dem na parce que vingt mètres ci biir nga takk buum di ko xëcce pour mu génn hay ilaha illallah mais loolu yëpp sabu nga gis fii ben ben fii dem dugg ci benn caniveau génne fa ñeenti puno ak ñetti taxaw fa puno rek ngelaw mënu ko faa dugal te xam ñi doon defar canal yi tamit ko fa te dañoo defar canal bi ba tëj ko lu ko fa def lu réer ci néeg ci lañ koy lu fi doon saboté ñom ñi la ngir bëgg jot ci nguur lu ne def nañ ko dama yaakaar nag yàlla da leena jox nguur pour wer leen ba nit ñi xam seen jikko mu jëlee leen fi bu ko def problème bobu régler c'est-à-dire que ñi mom gis nga ñi mën na am seen nguur egg mën na bañ egg waaye ñi gis buñ fi jógee far nañ ku tak ci ñoom dootoo laal nguur gi parce que nit ñi nak defe na répp xamna jangal nañ leen ba xam ñi ñoy yan ñew nañ indaale seen bagage ñew nañ indaale seen jikko mm-hmm. li extrêmement grave nga dem ba boy fal yow fal dang koy fal nga xey suba ñu ne la ki nga fal bokkutoon ci projet bi yow compétence nga doon fal wala far farlo nga mujjé jëlé ko fa c'est di n'importe comment fi ci rew mi est-ce que nekul lool mom mo leen nara indil ay ay ay jafé jafé parce que jub jubal biñu ñu biñu waxon euh, compétence bobu da ci am da ci am solo parce que c'est vrai que amna ño xamanteni xex nañ pour projet bi mais bu fekkentene tay dañu bëgg euh, jël li nga xamanteni ñu pare peut-être ci Pastef wala coalition Diomaye euh, favoriser leen ci par rapport ay recrutement yi ñu def est-ce que du leen porte préjudice également ci ci ci ci doxalinu réew mi. ñooñu loolu ko ku am kersa moo koy xalaat ak ku bëgg réewam ak nitu dëgg moo naan man fal ngeen ma ma falu waaye nag dootuma seen président président sénégalais yépp laa. Mm. xam nga Diomaye dañ dañ ko fal dañ dafa démissionné ci parti bi. Mm-hmm. kon ba muy nommé sénégalais yi la waroon di jël di nommer par compétence ndax moom bokkutul ci parti bi. Mhm. mais waa parti bi rek lay nommer. loolu mooy génn naa sama làmmiñ ci parti bi waaye sama xol ak sama jëm ak sama lépp a nga ca biir mais ci làmmiñ rek génn naa ci parti bi. mais est nekkul aussi ñi nga xamante ñoom ñoo bokk ci parti bi ñoom ñoo gën a xam projet de gouvernance am aussi. non non xam projet de gouvernance ni réew mi doxee lañ war a xam mhm. ñoom amuñu projet de gouvernance amuñu tus yoruñu dara naa da waxi kese lañ ñëw c'est des escroqueries politiques. Mhm. ñu gis né euh, le mouvement bi nga xamanteni euh, dafa ëmb ay commerçants euh, tay ñu ngi doon amal également ñu ngi doon war a amal foofule ci Colobane lu jëm ci li nga xamanteni mom modi di ab ndaje ngir xol nan lañuy def ba jafé euh, jafé yi nga xamanteni ñu ngi koy jankontel euh, notamment lu jëm ci li nga xamanteni bo euh, moy sen marchandise yi ak li nga xamanteni ni modi sen di place yi nga xamanteni ni ñu ngi leen ko fay ñu ngi leen fay jëlé que ce soit muy Colobane ak yenen ci ay ay marché xol nak nan lañuy def ba janok li nga xamanteni mom modi di nguur gi est-ce que tamit nguur gi jotul également vraiment mu jël ay décision yi nga xamante ni dana mën a waxtaan ak li nga xamante moom moo di euh, marchand ambulant yi notamment euh, tissu euh, social bi parce que ñooñu dañu bokk ci ñi nga xamante ni dañu porté woon projet bi que ce soit muy marchand ambulant yi que ce soit muy cag-cag yi que ce muy jeunes yi est tey bu ñu continuer di doxalee nii c'est duñ dem ba sénégalais yi peut-être ñu ñu jéppi leen wala sénégalais yi nga xamante ñoo leen faloon tey départ jàmmaarloo ak ñoom